si bu nu ko soxlaa mooy lu mel ni tabaski ndax du fàtte ki ko bëgg ak ki ko def te sa soxna see yàqul dara miis yaa ngi li may wax mën naa mën mën mën naa ko wax te duma euh, liñ naan saar booy tarif te na mën na la taral te nangu mm-hmm. nangu mooy ku ma bokkal ndey ak baay ku ma bokkal baay naa lu la nekk lu ma xam ne it su ma ko defee nga bëgg dinaa ko def bi nga juddoo léegi benn objectif rek nga am mooy liggéey amoo beneen soxla Aziz su yeewoo boobu muy tëdd liggéey la nga yàgg maa teral nag man yàgg maa dégg bu tabaski jotee du ma jaaxal dama naa la Aziz naa ngam laal bi ma demee nag ba xam ne nag man daal si sama carrière musicale waruma dem ba way ba yegg fenn fi te wayuma Aziz yóbbu way tàgguma la it te dama la doon delloo njukkal te taxul ñu fay nga jël sa soxna fu baax su yàqul dara ma xam ko bu baax a papaam bu yàgg ma jaan njaay mi njëkk woon papaam bu yàgga yàgga yàgg li ma ko way nii génnu waañam mu yaatal di def katu lu baax mais bi nga ko terale moom li mu la jukkale mooy kenn gisu ko fenn moom boobu teraanga la teg sax mooy foo ma gis rek sa liggéeyu enregistré wala mbokk àjjee sa xew la wala damaa dem si xew amul faneen fooy gis Miss Ndiaye soxla mhm. ba bët ki dem ba muy ñëw di ma bëggal si yow dama bëggul la neex xam ne li ma def man su ko mënoon moo koy def su mënoon a que lu muy terale asgor terale la li nga sagale sa bàyyi mooy lii la yàlla cërale nga def ko fii si pays bi nga xam ne sa baay amul si amul si nga tëgg fi loo xam ne nag ne ko gétt nag ya nga daan dàq ñu naan alaaji aala njaay ak la mu doon def nga ne ko dama lay noppal nga ko la may noppale nga doon def dama koy def xool nga gën a bëgg muy fonk sa sëñ ñu tuddee la al nga jukkal sa sëñ bi nga sa jukkal am na loo xam ne ku ko def doy na teraanga dëgg la. gis nga wëri ku ne kër gi toog si saal bi naan ndox bu ñu bee ñaan. Baye Ndiaye mii moo ma wax. Italie la nekk di daan doole mi ngi nii sama waa jaa ngi nii. lu amul seere neexu. sama Njaay très bien Njaay Njaay ñi yaaram dama leen a ñii dama leen a jox ceeb dañ maa jox ceeb ah fi mu ne ni ma leen nuyoo ngay naan Njaay Njaay Njaay Njaay de xanaa xamoo dañu naan Aziz Njaay bëgg na Baye Njaay Baye Njaay bëgg naa Aziz waaye première ñàkk mat doomu aadama mooy am ju mag ju baax mate woo ko rek ba muy abar ko jàpp am na loo xam ne xol la man xamul ma xamul waaye xam naa ne bu doon saaka bakkan bu Aziz tax nga ah bi jël si teraanga rek Mohamed si laaj noonu mooy nangu dëgg teraanga bi gën si teraanga yi mooy nangu. ah ñëw nga. waaye nag sëñ Amadou Ba maa ngi noonu. ñoo gën a mën a danga ne bëgguma daraja. bu ma kenn tudd. soxlawu ma dara sagu artiste laa soxla ba pare nag ma am lu ma jàngat si yow bi ko bëggee def ko kilifa da koo def daanaka si sëriñ parce que li njëkk jiitu mooy respect yow jàngal nga sa diggante jàngal nga ku ne ni mu war a nekkee mag dafa ma sox wax bu ndaw ma téye ko dañoo mos a daje fenn Aziz nekk si nekk mu ne ma saa waaye dalu ma ko nañ def ko mu ne ko moom moom nekkee si kaw si suuf laay bi la si kër gi nga jaaxal famille bi la pour defar sa jikko déedéet koy def danoo bokk ko war a dimbali moo tax ma koy dimbali déedéet ba mu lay woo yaa